waaw mbokk yi ñoo ngi toog fii président Axlu Lamb Sénégal ko laaj lamb ji gis ngeen nu mu demee ak fu mu mujjee kenn ku ne gis nga du xew ko tegee xat na boo xam ni bon problème sécurité tax na mu ñu ambiance bi bari na bon nit ñi kontaan nañ ba mënatuñoo téye seen bopp ba lamb ji bu ñu ne ñu président Alpha président Alpha bu ñu la doon wax nga def sa synthèse ci lamb ji loolu ñu wax yow. waaw maa ngi lay bëgg di la ziaraat sànqos di nuyu ñëpp.

lu ñu naqari di masawu ñëpp coono parce que tamit làmb ji nii rek la mën a demee parce que tamit làmb ji le 22 le 28 lañ ko jàppoon weekend lañ ko jàppoon le 28 parce que ñu ñoo waroon a tëgg le 28 waa Sangomar TV tëgg le 29 ñu ñëw day national bi dugg ci 3 jours ñu avancé ko ba lundi bi parce que tamit mënuñu woon def la 4 bi parce que tamit la 4 bi. dafa satire won momo dafa satire yande fatou dafa satire ñepp dañu satire kon nak ñun ñu mënona def rek moy sacrifier def ko lendi bi mais nak gis nga liñu ci dal parce que tamit ah lendi bi ñew nak dajewul ak lamb ñepp dajé fi benen bi ñuy wax moy bayal bi nga xamanteni moy bayalu pigine ñu tege ko fi du gan ñu tege fi lamb parce que tamit yaakar na ne bayal bi ndana ñu bari jaar nañ fi Bombardier sëgg na fi Max Mbargane sëgg na fi Jordan sëgg na fi Modou sëgg na fi ñëpp sëgg nañ fi. nekk na ndaanaan ah, bayaal boo xamante ni génnee na ay ndaanaan yu bare baree baree mais nag bi bisu aw làmb Sénégal moo toll noonu ay amateurs yoo xamante ni bu ñu wootee ñëpp si ak tamit député Malick liggéey mi nga xamante ne nii ah, waaw ah, yaakaar naa ne liggéey na lu baree baree bëri ci làmb ji parce que tamit manqué wu ñu woon dara moyen yi amoon na. lépp amoon na tamit pub bi jaar na ci yoon mais tamit lenn rek lañ ci naxarlu mooy li nga xamante ni làmb ji eggul parce que tamit yaakaar naa ne bu eggul rek yaakaar naa ne am nañ ci part de responsabilité parce que tamit yaakaar naa ne am na kàddu yoo xamante ni mu ngi fi jiit làmb ak làmb Sénégal xajul ci bayal bi donte sax ñu ngi doon taataan loolu mais tamit ñun dañu jàppoon ne bu ñu organiser woon ñu def li ñu war a def euh, rek làmb ji na egg malheureusement loolu amul parce que tamit yaakaar naa ne yaa ndey faatu bi ñëwee rek wane na tamit ah gars yi dañoo am amateurs yi namoon nañ ko amaat nañu cofe am am nañu cofeel ci moom waaw mais nga léegi yow instant bi nii lan ngeen programmé wat si lan parce que maa ngi dégg ngaan dangeen koy tëggaat waaw xam nga ak làmb Sénégal moom du lekk àqu mbër man dama koy wax parce que tamit yaakaar naa ne mise bi nga xamante war nañ ko teg

un million bi pour ñi nga xamante ne nii mooy mbër yi la. man un dama lay dog un million yi mun naa koo seede parce que sama kanam lañ doon defee mise bi sama kanam lañ ko doon tasee. jërëjëf waaw ah, te tamit beneen bi yow yaa faatu bu ñuy buy ñëw fii. Hmm. ak mise bi ngeen teg fii yéen xalaatoo leen woon ni euh, fii dina xat lool ci yéen. wala day na ragaloo na demee stade wala. noo c'est que xam nga tamit dafa am fii dafa am ay réalité ngeen fii dafa am ay réalité mooy dafa am ay bayaalu làmb axlu làmb Sénégal ko xam axlu làmb Ngekoox yaakaar naa ne ci làmb mosuñu organiser làmb fii mu tas yaakaar naa ne yaa ndey faatu bokk nañ ci ñi ñi ko njëkk ñoo ko njëkk sax indi fii ci Petite bi ñi ko lancé ci Petite bi yaakaar naa ne bu ma juumul bii mooy juróom benn yoon man la lu ko ëpp yaa ndey faatu di ñëw fii yaakaar naa ne bu muy ñëw fii sax am na ñoo xam ne dañu naan kan mooy woy làmb ji miinuñu ko noonu motax suñu dernière journée bi moy euh, avant lamb ji bi mu fi ñëwee gis nga ni mu fi démé parce que tamit li amon na ci bayal be ci bayalu marché bala won té yaaka yaakaar naa ne marché bi ak fii sorewul bu mu ñëwee nak rig na rigé bi la duggé won yaaka naa ne keroog nee naa ko yaam day faatu nopil sino duñu la fay. parce que tamit amon na ampleur bo xamanteni ne nii macha allah moom nag moo toll foofu mais nak tay dafa ñëw. fekk koo xamante ni yaakaar naa ne dëkk bi am nañu cofeel ci moom mu jóge ci victoire bu extraordinaire muy buur Saalum mu dugg foo xamante ne nii u fañ nañ njooloo yaay ma buggaan te xam nga ne loolu yaakaar naa ne dëkk bi sax xam nañ ne jox nañ ko Toubacouta yaakaar nañoo bi mu riiree nit ñi riir moom mu riir rek gars yi mënatuñoo téye nit ñi ah malheureusement waa CNG tamit jàppale wuñ ñu parce que tamit jàppale bi moo waroon a nekk ñoom ñu xaar nit ñu toog parce que tamit amateurs yi lépp lu muy yëngu yëngu yëngu ñoom pare woon nañu pour xaar ñu defaraat làmb ji ñu ñu teg te du am benn violence du am benn benn xeex. mais est-ce que waa bi ñëw avertir nañ la trois fois de pourtant. waaw waa CRG bi sa jël nga micro bi maintes fois di di di artu gars waaw wax naa mais nag kaay ma wax la leen de dañu naan làmb ak topp mais ñoom tamit foog ñu topp làmb parce que tamit lii bu nekkoon ci àll bi du tas du tas tey bu nekkoon arrondissement euh, Fimela bi. ah mu nekk ay Diofior ay Djilor ay Simal du toj mais nag yàlla daf ñoo nattu ci ñoo xamante nii tamit maîtriser wu ñu làmb lool donte sax artu nañu mais tamit gérer làmb la ñu mënul parce que tamit seen première kàddu bu ñu xamatul dara fii la ñuy bàyyi làmb ji mu tas dama laa ne Sangos Aso mu ngi may dégg Cheikh mu ngi may dégg ndax mos ngeen a dem ci àll bi arrondissement Fimela ba mu daj ngeen dem ci benn làmb ñu ne. CRG bi dem bàyyi fa CRG bi dem bàyyi fa mosul am mosul am mosul am beneen bi man laaj leen géewu simal ak fii fu gën a yaatu géewu jolo ak fii fu gën a yaatu fii moo gën a yaatu gis nga géewu làmb di ñuy wax te la fay dugg ci mbër la fay dugg ci du xajul fii kon nag foog ñu bàyyi loolu ñoom dañu topp la dañu jàpp ne rek ñu bëgg occasion ci géew gi xat na géew gi xat na. waaw léegi Alpha ñu ah? dellu si waat ñu dellu si léegi yow instant bi nii nii tamit. Mhm. waa Ahlou Lamb euh, Sénégal lan la ñu nar lan la ñu programmé waat. ñun lu ñu programme bi doon télé ci ci lan ngeen programme ci délai bu gàtt quoi. waa man en tant que président. Mhm. bu ma xëyee dinaa déggante ak ki nga xamante ni mooy président Serif mooy président CDG bi fii. Mhm. déggante ak Maysa Ndiaye. waxtaanti ak ñoom parce que mise bi génne woon nañ ko ba pare man li may gënal en tant que alphali ñu tëggaat làmb ji parce que mbër yi ñoo ko moom te tamit man wax naa la ak làmb sénégal duñ lee lekk àq nee naa la ñun ñooy dajale mbër yëpp bu saison bi tëjee jox leen ñu lekk jox leen ñu naan jox leen xaalis décoré les meilleurs kon nag kooku amul dara loo xamante nii da nga koy da koy da nga yàq ci làmb te lii nag bu yaakaar ne gënal nañu lu ñu naqari la mm-hmm. parce que tamit en tant sama ko làmb ji eggul rek lu may lu may lu may metti la te lu may jéggaluwaat mbëy yi la lu may jéggaluwaat amateur yi la di ci jéggalu ñëpp ñi nga xamante ni dérangé woon nañu ñëw fii ci Ngeko ak lu làmb Sénégal tax la tax la jóg maa ngi jéggaluwaat ñëpp waaw beneen bi tamit affaire bi foofu est-ce que du doon lu gaaw parce que mbëri tamit seen licence ñooy waa CRG ba léegi te tamit war nañoo dem compétir waat bu fekkee affaire dafa yàgg noonu seen licence ne fi tamit est dina arranger mbër yi. yaa ndey Fatou mi bu ma joxoon accord moom moo jox ma accord ñu ne leen nañ ko def semaine prochaine. kon parewaat ngeen pour indi ko bi di ñëw pour ñu koy bu ñu d'accord woon pour ñëw léegi foo koy tëggaatee yow. fii ci ma la wax parce que bu ñu ko tëggaatee fii bu yàqawaatee dañu naan tayeef la hmm. mais nag yaakaar naa ne dinañ ko yóbbu terrain central. fi nga xamante nii ñi ko wax du amul baykat parce que foofu noonu. tëgg nañ fa làmb tëggaat fa làmb. mais tamit ampleur bi mooy loolu gis nga bayal bii muy bayal Pikine bayre làmb la am. wax naa la ne fii ay ndaanaan ñoo fi ñoo fi génn bayre làmb la am donte sax desoon na ñeneen réglage yàqu na tey ñu fa ñemee di dëgg mais tamit di nga gis ñeneen dëgg fi. mu tey ku xam Alpha. Mm. ku xam euh, ak làmb Sénégal. Mm. xam ne am na fu ngeen jëlee làmb. ak fu mm. ngeen yóbbu làmb. Mm-hmm. parce que wax nga ko sànq yéenay yéenay def saison bu tëjee. ngeen jël seen poche. décorer mbër yi. def si fête. ku fa ñëw di nga lekk di nga naan. waaw tey bi ngeen demee bay organiser li nga xam ne làmb pourquoi pas ngeen jël li nga xam ne mooy sécurité bi teg. waaw euh, waaw loolu nag dama ci dama ciy waxaat. yaakaar naa ne ñun wax naa la sànq ne le 28 la ñu waroon a tëgg. le waroon a tëgg. mu am deuil national boo xamante ne nii di ci jaale waale waa Tivaouane yëpp ak képp koo xamante nii rek sa doom wàññeeku na ci jaale ñëpp di ko jaale waa Sénégal wa ñun ñu jàpp ko le 28 deuil national bi génn Macky Sall génne deuil national le 26 27 mu dugg ci 28 bi kon mënuñu woon organiser bi ma demee toog ak adjoint su préfet toog ak commandant mu ne ma àlloolu ah, dëgg léegi ñu bind rapport boo xamante ne ni dañuy yóbbu làmb ji lundi foofu nag ñun mënuñoo bind parce que tamit effectif bi nekk fii mënta génnee fii mën mënta mënta ñëw fii commandant bi lu leer la ma wax moo tax ay visite la ñu mënoon a am te moment boobu mënuñoo bind pour ñu jëlee ay GMI Thiès parce que tamit bind bi da ngay teel a bind dix jours avant wala une semaine avant te loolu bëggoon nañu in immédiatement ak lamb Sénégal wax na ko ñu def ko bëggoon nañu wax loo xam ne def loolu moo waroon gisuloo fi sécurité ñu bëggoon nag lu ñu wax def ko ñu tëgg làmb ji ci nii man yaakaar naa ne comme que ken xexul kon xuloowul dafa tëgg ci lo xamanteni ni ci ci ci désordre ki manam ambiance ci ambiance la tojee ambi dama naan lamb ak ak ak ambiance mhm. donte sax ambiance bi lañu ñu antanul woon fii léegi mun nañu xaar ki nga xam moy mooy alpha bu dee ne journée bi dañ koy répété waat tëggaat ko mhm. sécurité totale bu doy mën nañ ko fa xaar journée bi dañ koy répété waat lu yagul dara aussi journée bi bu ngeen koy tëggaat mhm. ndax licence yi nga xam ne ñoo fi des moom ngeen di continuer wala dañ koy répété euh, bindat benen benen beneen compétition waaw dama la ne mbër yi fi mu toll nii loolu la ñuy bind parce que tamit fi mu toll nii. dañ koy yeggale quoi dañu koy yeggale. ñun même bu ñuy jël décompte suñu xaalis di ci jëlaat woykat di utaat autorisation di faraat sécurité mooy mbër yii nga xamante nii fii la poids bi toll foofu la ñu koy delloo képp koo xamante nii desoon na ci mbër yi. xamal ne tamit boo récupérer sa licence dinañ jël sa numéro téléphone bu ñu koy tëggaat tamit dinañ ko annoncé dinañ la moom man Alpha Lit dinaa jël sama téléphone woo ci mbër bu nee dañ am làmb ji jour temps dañ koy ekkali boo ñëwee ñu joxe heure boo ñëwul nag suñu jaan wàcc na mais lu ma la mënti wax mooy bu ma jógee fii incha allah bu ma xëyee dina woo ñi ma war a woo kale ak Yandey Fatou mii balaa mu ñibbi dinañ kale ma kale ak moom moom ñu jàpp jour lancé ko ak lamb Sénégal moom bu ko lancé ñëpp koy dégg dañuy eggali lamb ji ci télé laa ko waxee incha allah. question alpha foofu ci biir euh, poids lourd bi laaluñu mhm. loolu bu mhm. nag mën nañ ko augmenté. waaw mën nañ ko augmenter. am na poids yu tardé quoi. voilà am na poids yu tardé yoo xamante ni ñun bëggoon nañ ñu bind leen. parce que tamit loolu lu ma jooy la parce que tamit 32 litres nga jël 32 litres nga ne foofu nga yebane lamb ji. ak mbër yi nga xamante nga génn bind ay poids léger poids léger indi ko parce que loolu nag moo ñu sonal ci làmb ji de poids ñu bind boo xamante ni ay mbese mbese la bind rek ci poids léger bi moo ñu sonal mais nag poids lourd bu ñu dugg si woon ñoom dañuy dugg toog mbër yi nga xam ne mooy poids léger bi bëre après bu ñëwee ñoom ñu jël seen tour bëre mais li ma lay wax ne yaakaar naa ne daal dañuy bindaat poids lourd bi parce que comme que ñu ko dañ koy ba li ñu mënul mooy poids léger bi nga xamante ni dem na ba troisième tour ñu ko ñu koy yokkaat loolu moom duñ ko def mais li ma la man leer bi ne poids lourd moom mën ko wee te làmb ji dañ koy jàpp lu yàggul dara annonce bi di ngeen ko dégg ci télé laa nekk te yaakaar naa ne ñëpp looy tàggatoo li may tàggatoo mooy di leen santaat bu baax di leen gërëm di jéggalu képp koo xamante ni ñëwoon na ñëwoon na fii ci camp maa ngi ko wax nga déplacé wu man Alpha Ly maa ngi lay jéggalu di la wax ne tamit làmb noonu la ça arrive des fois waaw mais maa ngi santaat ñëpp di sant tamit ki nga xamante nii mooy te Malick Gueye yaakaar naa ne gunge nañ ci journée bi ba mu alaa mi ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm di sant ki nga xamante nii tamit mooy suñu yaay ji toog di sant aw Diop parce que tamit vraiment jàpp na si di sant Marème Ndiaye di sant tamit sama soxna la femme di boss waaw di ñaanal sama yaay bu baax baax baax ma gudd fan wér ak wér la ci dara ngay Seydina Mouhamed sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. waaw ah, jërëjëf mbokk yi kooku mooy Alfali président Ahlou Lamb